jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag euh, tey ñu dellu am mbégte daal di dalal Ngenaar seen moom nag responsable politique la ci fi nga xamante ni moom mooy pikin waaye tamit mu nekk membre. Euh, ci kuréel gi nga xamante ni tey moo ëmb jàngalekat yi nekk ci APR euh, kuréel googu. Euh, te Youssou Touré jiite ko moom membre la ci moo jiite tamit euh, kuréel googu ci gox bi nga xamante ni moom mooy euh, Pikine li ñuy waxtaanee danañu waxtaanee réseau des enseignants républicains ak jafe yi nga xamante ni moom la làmbool ak piccoog mbaalo gi danañu waxtaan tamit lu jëm ci wàllum politique ci Pikine waaye rawatina tamit lu jëm ci wàllum conseil présidentiel bi danañu si wax Ngenaar Sène réew mi FM a ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama xarit. di kontaan trop ci. invitation bi di nuyu aussi suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom ñooy chaque jour di euh, déglu euh, rajo Rewmi FM. Euh, jërëjëf Ngenaar Sène fi ñuy dooree waxtaan bi mooy lu jëm ci conseil présidentiel bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall amal na ko bërki démb ci alxames ji conseil présidentiel boobu yow lan moo ci sa xalaat. dama ko rafetlu dama ko rafetlu en tant que ndaw. parce que li ma fa gis keroog ak ni mu ko doxale ak période yi mu fa toog rien que pour échanger ak ndaw yi dafa nekk loo xam ne lu lu mësuta am la donc c'est une première fois ngay gis euh, président de la république yendu ak ndaw yi te ndaw yi boo ko xoolee couche bu ci nekk ku ci nekk rek ñëwul nga représenté ko représenté am am ñoo représenté euh, wax li nga xam ne problème yi nga xam ne am ngeen ko ci seen difficulté yi nga xam ne am ngeen ko ci seen corps de métier donc man mënuma def lu dul am contenté di félicité encore le président de la république une fois parce que dafa nekk koo xam ne euh, euh, ndaw yi ñoo ko soxal ndaw ñu ñoo ko soxal waaye nag boo xoolee ne population sénégalaise plus de 70 pour cent euh, yëpp ay xale lañ donc dafay nekk loo xam ne du nekk liggéey bu ndaw terrain bi dafa yaatu donc man li mu def dama ko rafet lu bu baax a baax a baax a baax euh, xaw ma nag vraiment idée bi fu mu ko jëlee mais dafa nekk idée boo xam idée bu pertinente la idée boo xam ne macha allah lépp li nga xam ne conclusion yi fa def bu ko appliqué dina yaakaar naa ne fii ak benn at dinañ gis ay résultats yoo xam ne dinañ ci mën a teg loxo. waaw xam nga Ngenaar Sène aussi euh, président Macky Sall conseil présidentiel bi. Euh, même bu dee tey ñu bari rafetlu nañ ko euh, ñenn ñi dañoo jàpp ne lu mu deful si euh, juróom-ñeenti at mënu koo def si ñetti at ñenn ñi loolu lañ gisee ku si mel ni Bougane Gueye Dany ak usman Sonko lan ngay tontu ci loolu. waa xam nga Sénégal moom dafa am ñoo xam ne même boo leen dindi woon weer bi teg ko ci seen loxo ñu ne gisuñu ko gisuñu ko mais président Macky Sall li mu fi def at yi passé nit ñi gis nañ ko. mais ku si nekk rek dafa am secteur boo xam ne da nga ciy teg sa loxo nga liggéey ko ba pare jël beneen secteur am na secteur bu mu nekkoon ci année yooyu noonu mais di nga fa ne li moom li ko dese ci ci yi la koy def mais nañ ko seetaan rek parce que axe yi mu teg leer na te nit ki aussi sa axe bu leeree rek lépp looy def rek da nga koy teg fi nga xam ne fu visible la fu palpable la ñooñu nag seen position lañ nekk ay opposant lañ c'est normal que ñuy galgal di ut li nga xam ne tachal ak li nga xam ne mooy liggéeyu président Macky Sall mais nag man ñuy ñu ñi ànd ak moom ak ñi nga xam ne tey nekk ci société civile beeg ñeneen ñi man dugg naa ci réseaux sociaux yi mais gars yi dañ ko apprécier bu baax a baax a baax a baax taxawaayu président de la république apprécier aussi conseil bi nga xam ne def na ko temps yi passé par rapport à la jeunesse ñëpp a ko apprécier parce que xam nañ ne li mu def ni lu teggumaanaa la te projet bu ñu ko tegee mu teggumaanaa rek da nga xam ne lii ni dina am euh, aboutissement dina am njëriñ ah, voilà mais mais mais mais Ngenaar xam nga tey par exemple tey Sénégal boo xoolee euh, population bi ñi si ëpp ay ndaw lañ léegi lan moo tax président Macky Sall xam ne Sénégal ñi fi ëpp ay lañ euh, lan moo tax njëkkewu ko woon ci politique am bi mu bi ñu ko falee ci bopp réew Sénégal waaw man foofu li ma fi mën a wax lenn la Euh, xam nga boo ñëwee fekk dëkk mu am ay chantier yoo xam ne yeggul dafay am yoo xam ne priorité la priorité c'est vrai que liggéey la mais chantier yooyu mu def noonu am na ay ndaw yu su am na ndaw yu su nekk am na ndaw yu su nekk lépp li nga xam ne tey commencé woon na am na ndaw mais munoo mu tal lépp mënoo mu lépp te xam nañ ne fu ñu toll nii euh, jeunesse bi dafa nekk loo xam ne croissance bi dafa xaw a doy waar donc la amoon lu mënoon nekk ci année yi passé ay année 2000 ay année 99 mënut a nekk année 2021 nit ñi xam nañ ko croissance population bi dafay gën a yokku mais lépp li nga xam ne tey fekkoon na ko fi mu ngi doon liggéey yow président Macky Sall mu ngi feeñ ku gis Sénégal xam ne am na un changement donc léegi bu demee ba xam ne aussi yaa am na beneen problème boo xam ne bomb la boo xam ne mu ngi waaj a exploser c'est normal que mu ne xaaral ma taxaw kat comme am na fu ma nekkoon léegi naa ko bàyyi ma jublu nag ci nga xam ne moom mooy ndaw dëkk parce que ndaw yi tey ñoom ñoo yore ëllëgu ëllëgu ëllëgu euh, Sénégal ëllëgu réew mi donc c'est tout à fait normal que mu bàyyi lépp lam doon def ne xaaral ma wax ak sama ndaw ne leen li ngeen def kat man gis naa ko dégg naa ko te bu soobee yàlla dinaa ko jëfi muy parole yoo xam ne parole bu war a neex bépp citoyen ci ci ci ci dëkk bi donc man maa ngi encouragé président de la république ne ko nag bu mu gëstu parce que fii moom dëkk boo gëstoo rek doo dem te mu ngi ci sur la très bonne voie mu ngi ci fu mu aw noonu la li mu def noonu la ñun en tant que enseignant ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax ci li mu def parce que ñu ndaw ñu aussi ñun ñoo leen di transmettre le savoir. d'accord mais xam nga ngenaar est-ce que tamit du président Macky Sall dafa bëgg a ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy euh, jeunesse bi. moom moo tax mu woote conseil présidentiel bi ndax gis nañ manifestation yi fi amoon ndaw ñi génn est-ce que du ndaw ñi def li na bëgg a moo tax mu organiser li nga xam ne euh, moom mooy conseil présidentiel bi ndax gisoo ne ay calmant la. waaw mais man dama jàpp ne président Macky Sall tollatu fu mu joxee ay calmant parce que dafa prouvé xam nga ku prouvé du joxe calmant c'est du concret man li muy def nii man dama jàpp ne commencé woon na ko. mais xam nga mënoo dajal lépp mais bu demee ba nga xam ne nag population bi day yokku day yokku dina ne taxawal taxaw leen parce que li mu li nga wax dëgg la parce que euh, euh, euh, jeunesse bi aussi dañoo am seen dañoo am seen wàll ñi nga xam ne jàng nañ ba pare ñi nga xam ne jàngu ñi nga xam ne ñu ngi ci beneen secteur informel bi ñooñu aussi dañ leen war a dañ leen war a jàppale loolu du calme mais dafa nekk loo xam ne lu ko waral la parce que moom mooy l le père la nation parce que moom moo jiite loolu c'est normal même yow mi nekk tey père de famille tey mbala keneen ku nekk père de famille tey am na foo xam ne da ngay toppali toppali fekk na am na loo fàtte mais loo fàtte la mais boo demee ba sa xel dem si rek bala nga gis loo xam ne ki la kat nga ne ah man kat xaaral ma jël loolu xaaral ma topp si xaaral ma liggéey ko xaaral ma defar ko donc président de la république joxewul calmant parce que promesse bépp xam ne def na ko wax na ko rek réaliser na ko kon man lii mu def ni man gëm naa ne dina aboutir incha allah. est-ce trois ans na. mais mais mais un an sax lu nekk xaj na fi. déjà recrutement bi nee na mu ngi jël 5 millions 5 millions xam ne tey mu ngi leen di dugal dans l' enseignement mais ça c'est du concret te déjà enseignement bi ñoom soxla nañ ko. sécurité bi aussi soxla nañ ko. donc man dama jàpp ne am na loo xam ne déjà acquis la. parce que ñooñu tey chaque année dañuy recruter des enseignants chaque année armée bi day recruter. Hmm? chaque année yeneen yeneen secteurs yi aussi dañuy recruter te loolu aussi gab boo xam ne da koy da koy absorber la. Hmm. donc man je pense que loolu déjà mu ngi ci yoon bi parce que boo xoolee te au niveau des du ministère de l'éducation nationale moom woote na pour wax ak. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo seq mbirum éducation nationale pour mën a euh, euh, fexe recruter xale yi kon foofu loo xam ne lu tegu ci loxo la du ay du calmant boo demee aussi ci ci l'armée gi man keroog seetaan naa benn commandant muy wax nan la ñu war a recruter ñaata la ñuy recruter donc loolu au fur et à mesure mu dem ak li nga xam ne aussi secteur informel bi moo ko war a jël mooy aussi le secteur privé ñooñu aussi bu ñu jëlee je pense que loolu dina dina gën a baax moo ma war a ñaaxaat aussi ñi nga xam ne te ñoo fi am ñoo fi am entreprise yi nañu fexe aussi dugal xale yu def stage. mais il faut ñu président dooleel euh, secteur privé bi secteur privé parce que am na lu ñu gis nga bi bi mbas mi bi mu fi jaaree président ñaata la génnee jox ko secteur privé bi. mais secteur privé ñoo la jëm jàppale ne président. mais c'est normal kon jàppalante la mais dama bëgg ne dama bëgg ne. Euh, waxum waxum man du ma ne lis du ma ne li mu def nii de dama ne nañ ñu na na ñoom nañ gën a yokk na secteur privé bi gën a yokk mais gànnaar xam nga tey par exemple tey secteur privé bi mhm. président Macky Sall secteur privé bu Sénégal mhm. euh, ñoom président ba ñuy Diop ñu jiite MEDES mhm. Euh, ñoom dañu waxoon ne am na huit commandement yoo xam ne euh, teg nañu ko te lépp lu tukkee ci conseil présidentiel bi ñi ay décision ñoom dinañ si engage wu soutenir accompagner si gouvernement bu Sénégal mais il faut que état bi moom tim liggéey euh, main dans la main maanaam bañ a sukkandiku rek que ci secteur privé bi ñoo war a créer emploi mais état bi moo war a jàppale secteur privé bi comme yeneen réew yi ay Maroc yooyu ni ñu jàppale seen secteur privé ndax secteur Sénégal ñi gën a ci réew bokk nañ ci aussi. dama ne euh, Mbagnick Diop maa ngi koy félicité bu baax a baax président Mbagnick parce que moom aussi gis naa li muy def maa ngi koy félicité bu baax a baax di félicité aussi patrona euh, sénégalais bi mais dama ne lépp loo xam ne ñu ngi koy def nañ ci boolewaale jeunesse bi parce que président Macky Sall gàttul xel ñoom bu ñu defee li ñu war a def rek président dina def lu mu war a def. foofu lay waxee ñoom li ñu ci mën a jël rek par exemple bu mënee jël mille bala ñu jël 10 000 ñoom xam ñaata la ñu jël ak ñaata la ñu attan nañ ko jël comme ni mu ko waxee noonu nee na bu soobee yàlla conclusion dafa jël ñoom dinañ appliquer ñun dañuy xaar léegi ñoom ñu appliquer ci employabilité des des jeunes nañu jël li ñu war a jël euh, sécurité bi nga xam ne national bi nga xam ne li ñu war a jël aussi ñu jël ko éducation nationale jël li mu war a jël foog naa ne bu boobaa la ci desati du bari. voilà ah, mais euh, Ngenaar Sène euh, gis nañ ne manifestation yi fi amoon bi manifestation yi jàllee ba léegi gis nañ ne yéen waa APR yéen a ngi génn. dem ci télé yi dem ci rajo yi di wax naan emploi des jeunes te manifestation yi bi mu amee ñu bari dañu leen di tuumaal naa leen da ngeen a dawoon dem làkkatu ji ban commentaire ngay def ci loolu. waaw man euh, euh, du ma wax lu ma maîtriser wul li ma maîtriser wul mooy man responsable bu daw. mais kenn gisu leen woon. waaw waaw loolu <laughs> loolu peut-être c'est c'est autre chose peut-être ñi ko defoon tey ñu ngi corriger ñu ngi corriger parce que xam nga insécurité moom bu xasee ba dugg rek moom ku nekk ku nekk xelam lay demee. ku nekk xelam lay deme peut-être ña ko defoon tey ñu ngi racheté wu peut-être ñu ngi dem ci plateau yi la ñu manqué woon ñu ngi koy def la ñu la ñu waroon def te defuñu ko ñu ngi koy def loolu c'est ça n'engage que mais xam nañ ne am na ñoo xam ne aussi ñu ngi woon ci wetu président Macky Sall période boobu noonu am na ñoo xam ne ñu nga fa woon am na ñoo xam ne ñu nga ko daan jàppale am ñoo xam ne woon ñu ngi woon sur man non man daw moon man maa ngi woon ci réseaux sociaux yi ñu di ma saaga di ma wax lu nekk ma ma ma ma koy ma koy ma di ko affronter man man séeréer laa man du ma daw xaw ma daw man dafay métti rek mais tout le temps je serai au devant te sama am na ci ay mbokk séeréer yoo xam ne aussi gis naa leen aussi ñoom macha allah ñoom aussi ñu ngi woon ci <laughs> ñu bokk ñëpp alpulaar yi nga ne ñoom dañuy amul fit dañuy daw pour vous revenir ne la euh, ñooñu ko def ñoom la engagé mais am na ñoo xam ne woon ñu ngi woon sur le terrain fi xale yi daan xeexee ñu ngi fa woon boo demee waa maire ñu ngi fa woon Euh, la directrice bi nga xam ne moom moo yore FONGIP mu nga fa woon xale yi ñu doon sànni euh, place de l'obélisque xale yi bu ñu tegee ay xeex teg ay pono ñoom en tant que DG dañoo suñ woon seen bubu di ko dindi ci voie publique bi pour oto yi mën a jàll pour vous dire que am na ñoo xam ne jour boobu ñu ngi woon sur le terrain voilà te te ñoom image dañ ko doon transmettre ci ci euh, nu mu tuddati ci réseaux sociaux yi ñu di ko gis di ko commenter di ko apprécier mais lan nga jàpp ne moo waraloon manifestation yooyu ci Sénégal gi yëpp waaw lu ko war a rek peut-être dama jàpp ne manipulation la rek Euh, manipulation la euh, de la part rek de xam nga man joros ma mooy tudd ay tur gars yi dañuy manipuler xale yi xam nga xale innocent la xale parfois balaa moo réagir ne li may def baaxul fekk na moom dugg na ci loo xam ne waru ci dugg ba pare mais ñoom bu ñu réfléchir ba réfléchir xoolal la ñuy dund temps yi est-ce que tey ka defoon histoire boobu ka defoon problème yi est yaa ngi dégg léegi ñuy wax ay waxam xam nga déggatuloo ko fu mu nekk noonu kenn déggatul parce que la vérité tout le temps dafay génn vérité bi bu ñu ko xamee rek Euh, c'est fini yow mënatoo def dara loo xam ne dina leen bett mbala loo xam ne euh, dina andi problème moo tax président nee na dara dara mënatuñoo bett. dara munatuñoo bett cela veut dire que avant que nit di teg ci ay xale xale yi li nga xam ne du dëgg li nga xam ne euh, c'est pas la réalité mënoo ko vérifier ñun dinañ andi li nga xam ne moom mooy réponse bi nga xam ne nit ñi ku ko gis di nga xam ne lii kat lii mooy dëgg bi te dëgg bi fii la féete. te président Macky Sall nag ku xool yàlla xoolal yàlla xam ne am na lu bëri lu changé ci dëkk bi ci mbirum ndaw yi ndaw yaa ngi liggéey mais problème bi mooy nee naa la 70 pour cent de la population ay xale lañ xoolal loolu nu mu toll ci dëkk bu ndaw dëkk boo xam ne aussi dafa nekk en voie de donc man dama jàpp ne. ay yéen a waroon a soutenir ndaw ñi te ndaw ñi nekk si jafe-jafe. ñun ndaw si ndaw la ñu bokk. ci ndaw la ñu bokk na xale yi aussi xaw a dem dem aussi am na yoo xam ne mënoo toog lépp mu fekk si la. munoo toog mu fekk si la parce que mun nga def yeneen defi concours mun nga jàng mun nga def leneen parce que am na yeneen yoo xam ne opportunité yoo xam ne am na mais yow munoo toog a toog xëy un bon ma damay dem ci bureau yore bic yore yore ordinateur mun te ne da am foo commencé tout le temps tey boo xoolee tey ñu fi réussir tey euh, xoolal euh, euh, ki yore CCBM xoolal fu mu réussir tey ak keneen ak ak keneen ak keneen donc mun nañ jàpp ne mun nañu réussir te du doon ci ci ci ci beneen ci beneen bic ak feuille. voilà na xale xoosi am ne amul soo métier kay jaay café tey ma jox la un exemple xoolal les fruits laa ñuy jaay ci dëkk bi kan moo koy jaay. Hmm? ay étranger ñoo koy jaay et pourtant sénégalais boo wax ne ko demal jaay fruits mu ne la bu ma yab. sénégalais boo xam ne ko demal ba bale léegi sax bale bi ñu ngi ko ñu ngi koy def mais loolu yëpp commencement la rek ndànk-ndànk rek tépp tépp mooy andi yu réet na xale yi aussi ñu bañ a xeeb dara dara dara gis nga salaire u cinquante mille baax na man bi mooy tàng tàmbali tàmbale enseignante j'étais volontaire de l'éducation nationale maa ngi doon am cinquante mille laa doon am te cinquante mille xam nga ne mënul dara mais cinquante mille boobu dañ ko jël gëm ko man maa ngi sa gërëm sama papa parce que bi bi ma ñëwee mu ne ma ah ngeen daal de cinquante mille moom bëriwul mais nag euh, góorgóorloo rek lu nekk mën na la cee fekk mais gëm ko euh, góorgóorlu ci persévérer ci mais nag parents yi aussi am benn approche bu ñu am ak seen i njaboot parce que président aussi mënut a lijjanti lépp na gars yi aussi gën a yaraat seen njaboot yi gën leen a teg ci yoon. parce que waa voilà. waaw mais mais euh, Ngenaar seen est-ce que tamit tey prés maanaam jeunesse bi. gis nañu seen bopp ci li nga xamante ni tey moom la ci la réew mi di réew mi di doxee ak tamit ndax ndaw ñi jamono ji am nañu espoir ci réew mi ndax gis nañ ndaw ñu baree bari jaaloon nañ ci ci géej gi ñenn ñi nag neen li expliqué ne que ndaw ñi Euh, gisuñu seen bopp ci ni Macky Sall ni mu yoree réew mi dafa bari ay direction yoo xam ne boo xoolee presque troisième âge moo fa nekk maanaam Macky Sall jërul ay ndaw boole leen ci gouvernement bi boole leen ci administration bi ay wala ci institution bi est loolu tamit du firndeel ne ndaw ñi ñoom du ñu gis seen bopp ci ni ci ni réew mi di doxee ndax am na yenn institution yoo xam ne bu fa jëloon ay ngenaar seen teg leen fa dañ naan kii kat ndaw la même bu dee yow doo doo enseignante tailleur nga sax nekk jeune da ngay fier ci ngenaar mi ñu jël def ko présidente euh, conseil assemblée nationale wala wala wala leneen mais bu ñu gisee ne institution yëpp ay paaki màggat ñoo fa nekk est-ce que loolu du indi frustration ci ci ndaw ñi aussi. waaw euh, euh, jërëjëf ci question boobu li nga wax dëgg la parce que aussi euh, il faut que ñu tabb xale yi ci poste de responsabilité yi. Euh, boo ko boo leen fa tabee day day may ñeneen courage li nga wax dëgg la parce wax nga dëgg am na yow ñoo xam ne nag moom suñu suñu suñu papa yi suñu tonton yi moom dañoo nanguwul dem retraite mais même ñun sax au sein du dañ naan <laughs> nañu nañu nañ nañu ah, waaw on veut du tout temps loolu la wax mais am na na koo xam ne tey waaw am na ñoo xam ne nag vraiment boo demee ba am 60 ans l'âge de la retraite fonction publique wala 65 ans jël retraite vraiment war nga mun a dem toog noppale ko nga xam ne am nga sëtaat nga may sa chance sët waaye toog nga toog fa sa sët boobu di taxawal di tontulaan nga di ko may ay 5000 ak ay 10 000 loolu aussi jaaduwul mais loolu président Macky Sall peut-être dina dina dina ci andi ay correction bu baax a baax a baax a baax nag jeunes yi ils ont envie de prouver ñoom dañoo bëgg a wane ñoom li ñu li ñuy jàng dañoo bëgg wone ñoom li ñu def parce que aussi bul fàtte ne jeunesse bii ngay gis ni tey li ci ëpp dañoo jàng li ci ëpp tey ay docteur la li ci ëpp tey am nañ formation mais nag du ma jàll te aussi félicité wu ma madame Habité mu yore 3FPT kooku aussi femme bu dynamique la femme boo xam ne man temps yi chaque jour que jëfee damay am ay liste ay jeunes yoo xam ne te dañu bëgg formation mais su ma ko woowee rek daf ma naan je suis là pour le président Macky Sall moom aussi vraiment mu ngi ciy def liggéey bu rafet a rafet a ñu ngi def liggéey bu rafet boo xam ne ñu ngi jël rele bi par rapport à la mais mais ngenaar dafa bëri ñoo xamante ni nee nañ ñi entouré Macky Sall dañoo xamante ñoo xamante ni maanaam ñu naqaree jot lañ beneen beneen bi ñenn ñi amuluñu euh, njariñ wala jegewuñu ñi nga xamante ni ñooy askan bi euh, entourage su président Macky Sall ñu bari ñoo ngi wax ne euh, ñi ko wër daal dese na nañoo wàcc sur le terrain nekk intermédiaire dem jege ji askan bi yow nga bokk ci parti boobu APR est-ce que loolu yow noonu ko gisee. waaw bon munu munu ma munu ma ne loolu amul am na effectivement am na ñoo xam ne tey heure ba nga leen di soxla boo leen woowee doo leen jot. loolu moom du ma wax ne am na te du wax ne du ma wax le mais nag loolu président Macky Sall xam na ko. parce que yow am na loo wax léegi ci li amoon auparavant mooy xeex bi amoon ay jeunes yi mooy manifestation yi amoon am na ñoo xam ne tey pour nga jot leen jour boobu dafay metti loolu moom lu lu am la lu lu am la da ngay am sa problème boo xam ne ponctuel la mais pour nga jot ki nga xam ne moo la ko war a régler moo tax ma félicité euh, la la la bu nekk 3PT parce moom boo ne karat la may aussi may ki yore FONGIP nga xam ne moom jeunes yee ko fi tax a jóg muy madame Thérèse Faye Diouf aussi moom boo ne karat mu jël la donc ay ah, yoo xam ne elles sont ils sont là ils sont président de la république am na ñoo xam ne seen bopp la ñu fi nekkal le président Macky Sall a def leen nommé moom mi leen wóolu parce que xam nga aussi décision président moom munoo cee wax ne lii ak lii ak lii mais mais n'empêche que sama xalaat mooy daal moom xam na parce que moom moo leen fa teg te xanaa peut-être ku muy jël war na xool war na xool sa enquête de moralité mbala mu am suivi boo xam ne kii kat jël naa ko un an mu évaluer lan la def lan la defu lan la réussirul lan la réussir bu fekkee ne moom note bi nga ko note bi nga ko note bi nga ko jox favorable na nga les nga bàyyi ko foofu bu fekkee ne note bi nga ko jox nag baaxul yow nga dindi ko fa teg keneen koo xam ne am na compétence yi parce que man comme au début man comme man jàngalekat la man parfois am na école boo xam ne bañ ma fa affecté mais directeur bi dafa ma wone ma ah ngeen il faut ñu signer un contrat d'objectif yow classe bi nga ko fekk mais tant de pour cent xaar pour nga mun a évoluer ak xale yi su fekkee ne egguloo foofu noonu dama lay rétrograder mais loolu sama formation personnelle la parce que bu fekkoon ne tey bu fekk naa classe par exemple 30 pour cent ma war ko yóbbu 70 pour cent demu fa mais damay toogaat foofu noonu nga xam ne daa gën a maîtriser classe yi gën a maîtriser xale yooyu noonu étape boobu noonu pour ma mën a jàll ci beneen étape loolu je pense que aussi na jël euh, ne ñoom ñooy nekk ak moom kon yow gis nga ne fi ne nii waroon nañoo mën def conseil des ah, xam ne moom dëgg dëgg de yàlla moom waroon nañu mën a teg seen doom parce que lajj nañ trop trop trop te lajj boobu ah, te lajj boobu noonu tey moo an mooy conséquences yi nga xam ne moom mooy am parce que tey ku dem tey def campagne

na am parce que tey ku xool li président Macky Sall réalisé tey biir Dakar réalisé ko ci monde euh, euh, rural bi billahi di nga xam ne kii mooy waaja. mais mais mais euh, Ngenaar il faut ñu d' accord na ne sénégalais yi constat bi nga xamante ni tey def nañ ko mooy sonn. sonn goo xamante ni sénégalais yi sonn nañ ko ñàkk xaalis goo xamante ni tey am na ci réew mi ak toroxtaange goo xamante ni tamit gis nañ ne saa su nekk ma ngi gën di yokk loolu moom même bu dee tey réalisation yooyu mën naa ko bañ li nga xamante ni am na daal ñun ñu koy dund ku nekk ci réew mi dëkk ci monde rural bi mooy sonn gu Sénégalais yi sonn loolu moom am na xaw ma nag nan ngeen def ba fexewaat ba confiance am mais moom Sénégalais def nañ ko ngenaar ah ma ne dama dama dama jàpp ne euh, sonn boobu ngay wax noonu Sénégalais bu xëyee dina añ Sénégalais ba nga xam ne tey boo demee di ko yërëm tey yow demal ci dëkk àll yi ñoo la gën a mun a togg ceeb bu neex ñoo la gën a mun a togg togg leneen ak leneen man sonn boobu parfois bu ñu ko wax daf may xaw a jaaxal xanaa ku nanguwul def effort moo naan man dama sonn mais nag il faut ñu xam ne tey doo toog rek di xaar ne yàlla yàlla mu ñëw ci yow mais aussi il faut que nga def effort. munoo toog di xaar xaar xaar président est-ce que mun na dugg ci kër gu nekk mu jox la xaalis munu ko mais yow yaay def effort yaay sabab lu tax tey yow sa sa vie mun a changer. ah man boog ni ma ni ma yare laa mun a wax yow yaay jóg def effort teel a jóg mais xoolal ji femmes yi mère mère yi. parce que man foofu laa mën a jëlee exemple samay mbirum njàngale mais ñun tey da nga gis maire yoo xam ne suba teel la ñu ñëw tey déposer seen doom dem marché poisson di jaay ñooñu seen doom dañu leen di fayal des études universitaires yoo xam ne euh, ci ci kii la mais lu ñuy jaay jën la ñuy jaay tànk bàyyiwuñ soo métier tànk bàyyiwuñu du xeeb tout le temps di nga ne man dama sonn mais métier boobu noonu ngay am dërëm di ci am ñaar dërëm tey métier boobu doon moo mën a dem ba yóbbu la fu sori nañu bàyyi xeeb man dama jàpp nañu bàyyi xeeb pousse pousse yi ñuy yan yan ko yore pousse ñoo ko yore man caare bi ma dëkk nii pousse pousse yi parfois dañuy dañuy dañuy dañuy lebal Sénégalais yi ay 10 000 francs teg ci 500 ba ngoon jot nga fay leen te ñooñu liggéey la ñuy def pourquoi ñun mënuñoo jël jël liggéey secteur boobu noonu pourquoi mënuñu jël secteur fruit pourquoi mënuñu jël secteur yi nga xam ne ni ñuy xeeb kon yow da gis ne Sénégalais yi nanguwuñu liggéey waaw waxuma ne nanguwuñu liggéey de ne moom wax loolu <laughs> mais dama ne daal nañu ñu ñu tam aussi yokk a góorgóorlu bu ñu yokkee góorgóorlu nguur gi def li mu war a def foog naa ne mën nañ cee génn gi aussi yow xam nga ne mënul dajal lépp mënoo xëy kër gu si nekk nga ne ko da nga koy jàpp da nga yóbbu tel usine mu liggéey mba da nga koy jàpp te def lale parce que aussi bul fàtte ne am na ñoo xam ne aussi dañoo jàng am na ñoo xam ne aussi dañoo am seen i diplôme ak leneen nga xam ne tey defuñu dara toog seen kër yi dinaan ataaya aussi nañu jóg ñu am mais mais ganaar am na ñoo xamante ne ay pêcheur lañ nee nañ dañoo jaay géej gi étranger lañ ko jaay ba nga xamante ni tey niñ doon amee jën amee duñ ko jën pêcheurs yi am ay jafe-jafe mareyeurs yi nga xam xamante ñoo doon jël géej gi si tefes gi doon ko jaay yooyu am ay jafe-jafe yenn baykat yi nee nañu jàppale gi leen état bi waroon a jàppale jàppalewu leen ko ñooñu tamit euh, xanaa mënoo wax ne ñooñu dunduñu ay jafe-jafe te nangu woo mënoo wax tamit ne ñooñu xanaa góorgóorluwuñ waaw ñooñu mënuma wax ne góor góorgóorluwuñ mais xam nga jë euh, mbaal bi moom dafay sat dafay saturé peut-être bu fekkoon ne repos biologique am na peut-être mënoon na xaw a changé mais ñun Sénégal boo ko xoolee te ñun jën jën mooy suñu plat plat principal c' normal ko mu mu mu xaw a wàññeeku bu fekkee tey président bu tëjoon tëjoon géej gi tey. jaay géej gi ngeen def waaw jaay géej gi moom man wóoruma munuma ne dañoo jaay géej gi parce que awma benn papier bu ma firndeel ne dañoo jaay géej gi. <laughs> gisuma kenn fu ñu koy signé gisuma fenn fu ñu publier ne jaay nañ géej gi te et puis loolu. <laughs> loolu nu mu war. non jaay géej gi xam nga jaay géej gi entre oui ma xaar ma expliqué la jaay géej gi. Ah. soo déggee ma ne la jaay géej gi euh, pêcheurs yi ñooy wax jaay géej gi même géej gi bu ñu ko jaayul état bi dafa signé ay contrat ay accord ah ak euh, ay étranger bateau étranger yi dañuy ñëw fi ñu war a yem ñoom en général léegi contrôle bi ci marine nationale bi euh, marine nationale bi contrôle bi dafay faral des ba nga xam ne bateau étranger yi dañuy ñëw ba nga xam ne fi gaalu sénégalais yi dañu nappee ñëw di napp jën yooyu xam nga kon bu ñu nappee jën yooyu sénégalais yi dootuñu am fu jën ndax amuñu ay moyens yoo xam ne wala bateau yoo xam ne danañ mën a dem ba sa biir géej ga loolu moo tax mën a a jaay géej gi ah waaw peut-être yow entendement boobu nga ci am mais man daal mënuma wax waxu jaay géej gi te bateau yi ko doon maa ngi déglu ministre de la euh, de la pêche mu ne ay bateau yi nga xam ne étranger yi ñu fi nekk motul sax trente te xoolal le long de la côte 30 bateau mun a yàq dama ne la ñun tey li ñu waroon exiger président Macky Sall peut-être ñu def repos biologique tëj géej gi parce que man tëj géej man Foundiougne laa ko gisee parce que man je suis de Foundiougne. falaa juddoo falaa màggee ñun parfois dañ daan ne période crevette bi dañoo tëj géej gi tëj ko ba en moment ba mu am yenn période ñu ubbi ko mais buñ ko ubbee macha allah da ngay gis ne crevette dafay bëri man crevette kilo 300 sax dañ koy jënd fu ñuñ jën gis bi am pagaay fu ñuñ parce que dañu tëj géej gi léegi nag bu fekkoon ne tey am nañ possibilité loolu ñuy appliquer par exemple euh, ci ci ci bras de mer bu fu ñuñ bi ñu appliquer ko fii peut-être dina xaw a tane mais fii boo fi géej gi kon tey sama mbokku juufeen yeeg sama mbokku fayeen fu ñu lekkeeti ceebu jën il faut que aussi ñu xam ne aussi dañu am réalité peut-être lu ñu mën a def mooy le ministre de la pêche li ma ko mën a ñaax mu gën a développer peut-être secteur pisciculture waaw mu gën a def pisciculture bi seet fi nga xam ne adapté wu na mu créer foofu foofu aussi création d'emploi daf fay am mu créer ko fexe ni japonais yi def ak chinois yi ñu def parce que ñun tey am nañu ndox am nañu suuf loolu foofu mun nañ mun nañ mun nañ fa def progrès d'accord ngeen ar euh, yéen a ngi wax emploi des jeunes emploi des jeunes euh, jàpp ne man ma jàpp ne day ni calmer ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy euh, ñoom ñooy jeunes yi waaw waaw man loolu laa jàpp léegi sànq tamit nee naa la réew mi dafa naqari réew mi dafa mett nit ñi dañoo sonn auditeurs yi nag ñoo ñuy déglu yow jàpp yow jàppoo loolu danga jàpp ne nit ñi sonn ñu xaalis am na loolu nga jàpp n'est-ce pas ah waaw li ma jàpp daal mooy ku ñafe daal. Ah. di nga gis sa bopp. mais jàpp na jeunes yi aussi li mooy li ma la wax rek emploi li li président Macky Sall teg pour recrute ñi pour recrutement au niveau de l' éducation nationale sécurité ak yeneen secteurs yi nga xam ne war nañ fa recruter bu ñu ko defee dina absorber gab boo xam ne peut-être sonn ba ngay wax noonu mën na mun na wàññeeku bu baax a baax parce que déjà nag bul fàtte ne secteur yëpp am na jeune boo demee assemblée nationale na jeune boo demee ACCT am na jeune boo demee conseil économique social ngi partout mais bul fàtte ne 70 pour cent de la loolu aussi bu leen dee leen ko jiital boo ko jiitalee di xam ne rek du dafa nekk loo xam ne lu yombul la mais n'empêche que président Macky Sall lépp lu mu ci war a def tey dina ko def. d'accord jërëjëf euh, Ngenaar seen mbokk yi moom la ñu invité ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu nekk euh, responsable politique APR Pikine euh, nekk membre tamit ci réseau des enseignants républicains maanaam kuréel gi ëmb jàngalekat yi nga xamante ni tey ñoo bokk ci parti bi di APR léegi Ngenaar seen réseau boobu noonu. Euh, fi mu ne nii moom euh, mën nañoo wax ne tour wee fi nekk réseau des enseignants euh, républicains maanaam jàngalekat yi bokk ci apair seen kuréel googu pëccëxoo na fan yi jàll am na benn assemblée général boo xamante ni yaa nga foon saagante ya te yéen vraiment loolu nan la mën a amee ci ñoo xamante ni tey yéen nee ngeen président Macky Sall ku yaru la koo xamante ni du xuloo du xeex la ba pare yéen ñu ànd ak moom rawatina ay jàngalekat. ngeen yor ay élèves di leen jàngal ngeen di xuloo xeex ak a ak a saagante xam ne yéen régler réseau boobu sax mun leen ko def lan mooy problème bi <laughs> Ngenar Sène <laughs> d'abord euh, li may def mooy marqué tuuti pause pour jéggalu sénégalais yi parce que saaga dafa nekk loo xam ne ñun du suñu culture maa ngi jéggalu sénégalais yi bu baax a baax a baax di jéggalu aussi suñu euh, jàngalekat di jéggalu aussi le président Macky Sall di jéggalu aussi ñi nga xam ne. ñoo ko wër nga xam ne tout le temps ñu ngi doon gravité autour du réseau des enseignants pour fexe euh, réseau boobu tegu ci yoon. maa ngi jégalu aussi euh, tey euh, responsable yu mag yooyu ak ki nga xam ne tey moo ñu abaloon tey salle bi. ki nga xam ne moo doxoon lépp pour defal prés defaral président Macky Sall fexe ba ñu am accès ci salle boobu noonu parce que man dama ci joué bu rëy moo tax man gis nga jour boobu nelawuma dama am lu ma métti parce que tey mag bu toll ni man. ànd ak ak sama le responsable de euh, ma ànd ak sama honorable waaw waaw <laughs> ànd ak aussi euh, euh, honorable Terence Senghor ànd ak aussi coordonnateur Mbassa ñu dem lijjante fexe ba ñu am salle bi pour que rek ñu fexe enseignants yi assemblée générale boo ko dégg pour que ñëpp regroupé wu la pour que ñëpp doon benn loolu moo ñu taxoon a jóg pour que tey waa COJER ni ñu def ma leen di féliciter euh, au passage ñoom li ñu def def seen assemblée surtout la jeunesse féminine nu ñu def tey ba am assemblée générale bu baax boobu noonu euh, les femmes aussi nu ñu def Pikine ñu ne ñun pourquoi pas ñun les enseignants ko def parce que tey boo xoolee les enseignants tey dafa am taxawaay boo xam ne dañ ko taxawaay ci dëkk bi parce que foo dem ci Sénégal tey fekk fa jàngalekat amul fooy dem ci Sénégal ruq ba gën a ruqe sax di nga fa fekk jàngalekat te loolu président Macky Sall moo ci jàpp tey fexe égalité des chances parce que xam nañ ne jàngale loolu moom mooy njariñam foo dem rek fekk fa école. kon ñun am na taxawaay bu ay ay ay mbaar am na mbaar ba tey nag. gànnaar mooy li ma la wax mbaar yi fu mu toll nii. macha allah mbaar yi moom. am mbaar mbaar yi mu ngi dañ. abri provisoire yi abri provisoire abri provisoire bareetul. waaw mais am na bareetul parce que mhm. tey ñu ngi ci ñu ngi ci. côté jaw bi bi kay am na fa man bëri naa xale yu jàngale foofu. waa dama ne dama ne. lu ñu wax zéro abri provisoire la ñuy wax te d'ici deux ans di nga gis doo fi gisati abri provisoire soo demee par exemple dans le nord dans le Fouta peut-être Diaobé mais dans le Fouta am na benn responsable bu mag bu fa nekk mooy le ministre de la justice kooku noonu fexe na abri provisoire bu fa nekk dindi na ko euh, dindi na ko def fa euh, def fa ay ay ay ay classe en dur donc pour vous dire que am na ñoo xam ne tey ñu ngi góorlu ñu ngi fexe tey euh, changer le visage de de de l'école sénégalaise ma dellu ci ci ci assemblée générale boobu noonu. dama la man dama am ci lu ma ci métti di bàllu jàngale di war di di di di di jégalu aussi euh, euh, les enseignants di réseau jàngalekat yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci fond fon Sénégal tey bëgg Macky sàll tey nga xam ne dañ koy ndamoo tey nga xam ne tey far parti au pouvoir na mu méttee te ñu tenir bon ba heure bii maa ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax a baax xam ne nag ñun lépp loo xam ne tey organiser woon nañ ko defoon nañ ko pour que ñun ñëpp ñu bokk doon benn pour que président ni mu yaroo ñun aussi ñu fexe loolu instauré. waa waaw ñun aussi ñu ñu topp ligne de conduite mais nag euh, munoo ne man nii laay mel munoo ne keneen nee la mel ku si nekk rek ak yar ba nga am sa kër moom ngay génne ci mbedd mi waaw man nag du ma. mais mais xam nga Ngenaar euh, jéggalu nga ba pare. Mhm. mais yéen APR. Euh, fan yële rek gis nañ ko Pikine ñu fa doon xëccoo di tojante ay ses ak yooyu yëpp si hôtel de ville mais gisaat nañ ko fii tamit ci assemblée général Euh, bu jàngalekat yi. fan yële jàll tamit gisoon naa ko ci département bu euh, Kébémer waa Benno Bokk Yaakaar euh, mais lan mooy seen problème yéen enseignants yu APR ak lan moo waraloon assemblée nationale ba demee woon ni mu demee. waa waaw assemblée générale bi nu nu mu demee du ma dugg ci détail parce que nettali xuloo aussi andi xuloo la ah, mais loolu dara nekku ci waaw mais waaw bu nga xam comprendre mooy lépp li ko waral mooy ñun mooy dañoo bëggoon defar dañoo bëggoon remobiliser les troupes dañoo bëggoon tey da ngaa ko yàq man man du ma yàq man man duma yàq man tey ca ña doon defar ci laa bokk ca ña fexe tey ñu am ñu ñu ñu mun fa defee euh, réunion man ca laa bokk man ca ña woon nit ñi man ci laa bokk pour que ñu waxtaan pour ku si nekk tey la nekk ci sa xol tey la li la na woon ba nga toog nga wax ko ñu trouver solution man man loolu moo ne woon sama objectif man ngeen a. léegi lu voilà li ko yàq mooy tey am na ñoo xam ne loolu arrangé wu leen. parce que tey arrangé wu leen parce que am na ñoo xam ne tey na yàqu moo leen gënal mu baax parce que xam nañ ne tey yow mun man repré aw ma représentativité man tey ñii bu ñu dajaloo man arrangé wu ma mais da nga ne man tey lépp lu ma arrangé wu dama koy yàq te loolu jàngalekat du loolu ñun lu ñu war mooy tey jàppale président de la république sensi sensibilisation tey ci li nga wax ci a zéro abri zéro abri provisoire bi nga xam ne moom mooy waaja moom d'ici un an deux ans dina am li nga xam ne tey mu ngi koy def ci mbirum école yi li nga xam ne tey mu ngi koy def ci ci ci ci ci scolarisation des filles chance bi nga xam ne may nañ ko jigéen ñi ci ci mbirum njàng loolu loolu loolu loolu ñun foofu loolu moo war a nekk tey ah, en tant que jàngalekat loolu moo war suñu débat nan lañ mun a def tey ba tey euh, euh, nekk relais entre tey les syndicats ak la gouvernement nan lañ mën a nekk relais tey ci ci ci kër yi parce que tey ñun ñoo gën a jege parents d'élèves parce que booy jàngale tey sa cible xale yi la ñoom ñooy sa sa sa kii de travail léegi yow nan nga mun a def tey bay dugal ci xale yi loo xam ne euh, lu baax la ñun loolu moo war a nekk suñu transmission du savoir ñun loolu moo nekk suñu mais tey ay saaga ay waxante lu bon man je pense que loolu du suñu rôle du suñu loolu dañu foofu moom di ñun ñëpp ñun ñu mënu ma ne diw camp moo def lii mais camp bale moo def lale mais dama jàpp ne loolu moom lu am la te loo xam ne waratu la am ba mukk ilaa yow mu diine waratu la am waratu la am mais mais réseau bi euh, Youssou moo ko jiitee lan moo waraloon saaga yi Amath Suzanne Camara doon saagante lu waral loolu waaw euh, saaga ba peut-être seen yaram yarama tàng rek seen yarama sàng dinaa wax kii ne ko doo wax dinaa wax ki ne doo kii saaga kii fayu loolu dong la mu tas mu tasul ba saagantee fa yow ba ba ba parce que loolu moment bu ndaw la woon rek c'est que xam nga yéen journaliste da ngeen a doy waar yéen da au lieu que ngeen seet li la am njëriñ ca kii ba lu nga xam ne mooy jëmal nit ñi kanam yéen histoire ba moo bu gàtt la woon mais après tey quand bu si nekk def nga sa sa sa sa réunion ñun ñëpp mujj nañ def suñu réunion ku si nekk def nga sa réunion def sa PV def sa lépp loolu finalité bi atteindre na suñu objectif waaw Youssou mooy li ma wax ci beneen télé Euh, le coordinateur national Youssou mag la léegi am am nga am na loo wax fi léegi danga ne pourquoi mag yi léegi ñoom ñooy euh, yore ñooy waaw mais aussi c'est c'est valable pour le réseau ba ngeen changement. mais effectivement nu aussi nous voulons du neuf dañoo bëgg lu bees tàq dañoo bëgg ci jeunes yi ci xale yi. mais chaque jour loolu mooy problème bi sax gis nga li nga li nga gis histoire bi xam nga lan moo ko andi puusal ma toog succession euh, coordinateur pour successeur coordinateur Youssou Touré moom moo indi problème bi parce que ku ci nekk rek da nga naan acca man tam war naa caa mën a dem mais c'est de bonne guerre munoo kenn mënut a tere kenn mu am ambition mais sa ambition da nga koy décliner mais par ay pas ay xeex ak ay saaga da ngay décliner man kat su ma yoree réseau des enseignants kat lii lañ ma ciy xaar tey toppatoo enseignants yi toppatoo xale yi nekk relais euh, entre les syndicats ak le gouvernement euh, nekk sur le terrain fu ma gis abri provisoire ma signalé ko dem euh, sensibiliser enseignants yi loolu tey moom war a nekk tey suñu ligne de conduite. mais est-ce que mos ngeen a bind euh, officiellement président Macky Sall ka ne yéen réseau des enseignants républicains da ngeen a bëgg njiit bu bees. mais loolu waxuma la kii waxuma la sax bind. mais ñoom xam nañ ko parce que réunion yu mujjee def réunion yu mujjee def fale au niveau du au niveau du palais bañ bañ fa mujj def def ko par vidéoconférence yu suturé bokku ci. et loolu ça signifie beaucoup de choses réunion bu ñu def noonu bokku ci ñun euh, nous étions au nombre de neuf. bon non c'était pas avec le président mais avec ñu toogalal ñu toogaloon président ñi président mandaté woon pour ñu wax ak ñun. donc c'est ce qui veut dire que réunion boobu amee benn yoon am ñaari yoon te coordinateur national toogu fa cela veut dire que moom peut-être euh, moom moom sax day wax na ci télé ne moom mu nekk acte bi mooy succession bi man bëgg naa sama morom bëgg na sama morom bëgg na maintenant il faut pour que ñu utiliser nag les armes conventionnelles duñ ko def ñoom xam nga la ñuy bëgg kurpeñante xeexante yàq xam nga ne man xam nga ne ngenaar bu la wóori ne yow ngenaar coordinateur coordination bi bu ñu la ko joxee mënuloo ko yore te yow ngenaar euh, bu bu fa demee arrangé wu la nga ne xaaral te loolu ay ñaaw njortu mën nga xalaat ne peut-être ngenaar lan moo ko war a tey mu bëgg euh, la coordination mooy mu fédéré boole nit ñi ñun ñëpp ñu doon benn mais xanaa xanaa ji euh, fédération jiite euh, kuréel gi ëmb jàngalekatu APR dafa am ay privilèges yoo xamante ni euh, daf ci am ba xuloo bi xiiroog ŋaayoo bi tar si lool. man na gisuma dara lu ci am dëgg dëgg neex yàlla man de gisuma la ci am. bëgg nga ko jiite amee bëgg naa ko jiite kay kan moo nan man maa ngi ci jàngale bi man j'ai fait presque vingt ans dans les classes. kon ba ba pare waxuma la dara mais j'ai fait la brousse comme tout le monde j'ai fait le ñombato j'ai log naa la fu ñuñ donc am na ay année yoo xam ne boo ko defee dans l' dans l' enseignement yow war nga xam tey dund ko par nekk syndicaliste aussi di xam ne man kat lii war naa ko mun a yor oublie lii waruma ko mun a yor parce que yow da nga xam le problème réel des enseignants parce que que yow li nga wax léegi rek faut ñu teg jeunesse xam ko dem retraité xamatul problème mu jàngalekat. mais ki nga xam ne tey yaa ci biir yaa ngi ci en plein exercice yow di nga xam ne man ñii problème bi lañ am fii laa leen war a mun a jàppale fii laa leen war booy plaider sax di nga xam ne ah. man kat monsieur le président de la république enseignant bi kat fexeel mu jot avancement enseignant bi kat fexeel kat moom euh, carrière am nga defar ko faala mu jot rappelam mais ban problème la jàngale am de manière général Sénégal ak euh, syndicat yu bare bari gis naa ñuy am yu ñuy réclamer ay kusèm sa xeet yooyu ah, ban lan ban problème moom la jàngalekat yi lan la ñuy réclamer fi mu ne nii yéen seen seen soxla suñu suñu soxla lenn la président euh, gouvernement bi état bi lu mu amel jàngalekat yi mu jox ko ko li mu ameel jàngalekat yi mu jox ko parce que accord yooyu dafa nekk accord yoo xam dañu ko signé woon ci Ablaye Wade mu yoo xam ne tey yow boo ko déggee sa da ngay tiit parce que dafa nekk accord yu bari yoo xam ne da ko accumulé yàlla def mu wàcc président Macky Sall hérité ko donc. mais am na si accord yoo xamante ne ngenaar. am na si accord yoo xam ne si président Macky Sall bul fi jël lépp nga jox non président président Macky Sall tey ñun logement la gars yi doon xeex logement mu ko fekk 60 000 yóbbu ko ba 100 000 francs léegi nag lu problème du mal ne problème amul lenteur administrative am na. parce que man mi di wax ak depuis 2014 avancé wu ma am na ñeneen ñoo xam ne mosuñoo avancé mooy fi ngay wax noonu tey fa nga wax ne ay jaww bi am nga fa ay mbokk enseignant soo demee wax da nga naan koo xam ne jàng na problème la loolu peut-être ministre bi nga xam ne moo ko géré ba pare mu ci wax ay jéego ministre bi ko bi ko bi ko jiite gis naa temps yi la def na ay 12 000 euh, actes yoo xam ne élections yoo xam ne signé na ko loolu dañ ci applaudir dañ ci dañ ci kii mais wàcc recrutement parce que ku koy dugg ci enseignement tey xam nga ne mi amul métier boo xam ne amul problème. waaw d'accord mais xam nga tey sa choix bopp man ba may dem ba may dem di déposer ji volontariat nekk enseigne ah, nekk enseignante man xamoon naa la ca nekk. parce que am naa papa ay enseigne sama papa day jàngale ma xam gis lu muy dund mais man sama bopp maa jël sama choix personnel ne ah jàng lii kat lii moo ma ci neex parce que boo dugg si métier nag na nga na nga nekk loo xam ne na nekk sa xol. na nekk sa bu nekkee sa xol nag boo ca demee lu ci am rek di nga ko jël ak philosophie. mais boo ci duggee parce que tey gagne-pain nga ko def aussi là sa pose problème. Ah, d'accord mais Ngenaar xam nga tey par exemple tey boo nit ko def plus de vingt ans ci jàngale bi. Mhm. amul benn avancement. loolu dafay tax ndaw ñi nga xamante ni tey amoon nañoo yéene dugg ci biir njàngale seen yéene jooju noonu nañ koy mujj bàyyi ndax am na ñoo xam ne dañuy bëgg a dem jàngale ji mais bu gisee ne corps boobu noonu fulaaluñ leen dañu leen a doye dal boolewuñ leen si nit ñi war a teg ñu baree baree bari dootuñ nangooti dem di jàngale ji te tey jàngalekat yooyu noonu euh, tey mënoo wax ne ëpp ñu njariñ euh, ministre yi ndax mini boo nekkee ministre nga nekk magistrat nga nekk président jàngalekat moo la jàngal moo la jàngal ci classe bu digg doomu bi ba ba fi nga yegg tey tey yéete yéen magistrat yi sax lañ gën a farataal ak yeneen corps yi te yéen yéen koor yooyu yéen jàngalekat yéen leen jàngal ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu am niveau yooyu ñu nekk mais yéen bu ñu leen jëlee tey def leen ñoo xamante ni ay nit ñu jëmul fenn est-ce que loolu dina tax xale yi am bëgg am xemmeef teefu dem di jàngale ji. waaw loolu d'accord naa ci ak yow parce que man li ma dugg syndicalisme yépp man injustice bugguma ko injustice forme bu mu munti di nekk rek mun bugguma ko yow li nga wax. dëgg la mais boo seetloo tey président li mu wax euh, ci euh, centre Abdou Diouf bi dafa leer ministre boo xam ne nommé nañ la fi nga retardé courier bala nga retardé signature da nga ko diggaale ak moom loolu rek man dal na sama xel. man dama jàpp ne loolu mu wax noonu bu ñu ko appliqué ci trois ans yi nga xam ne pour ñu dem mille 2024 incha allah jàngalekat boo xam ne am nga retard bu soobee yàlla dina dina di nga dem ci say droit loolu moom ministre bi nga xam ne moom moo en charge loolu loolu bàyyi na ko xel. peut-être waxuma li ma weesu de parce que li nekk sa gannaaw mënatoo ko wax donc dañuy wax mbirum avenir mais yaakaar naa ne tey loolu yëpp dinañ ko corriger. Ah, moo wax la leen encore ci mbirum jàngalekat yi jàngalekat ñëpp dañ leen di am nañ salaire yu baax. salaire de base jàngalekat baax na parce que man bu fekkee loo xam ne xaw ma ko duma ko wax parce que ci laa nekkate ci laay fayeeku ah, dama la bëgg wax ne la waaw da nga ci boole mais man dama ko dund nga yow da nga dégg mais man dama yow dund da nga man dama dund da nga la bëgg wax ne la jàngalekat du misérable le minimum le minimum mu ngi am salaire am boo xam ne dina ci mën a añ dina ci mën a reer dina ci mën a ndékki te jàng waxuma la jàngalkat may mais jàngalkatu léegi yii nii macha allah. jo waaw ñu waxuma xarmat de parce que loolu mënuma cee wax lenn. non xam nga ngeen naan man maa wax xarmat xam nga man la xarmat. Mm-hmm. Euh, jàngalekat yi bëri na jàngalekat yoo xam ne nii boo leen bëggoon a yóbbu ci yeneen région yoo xamante ni amul ay école privée wala dara wala fu ñu xaree mat dañuy lànk kandaare bañ a dem am na jàngalekat yoo xamante ne fi mu ne tey dañuy démissionné sax si euh, fonction publique dem ci privé bi ndax ay jafe-jafe. loolu amagu Sénégal jàngalekat bu démissionné public dem privé boo ko boo ko tegee bët wax ma ko. gis nga kay wax la lépp lu ñuy munti xar xar xar mat tey. billaay walaay taala benn jàngalekat du bàyyi bàyyi public naan day dem privé parce que privé public sécurité la. ñoom xam nañ jàngalekat tey boo demee si seen seen mutuelle de santé yi ñoom pour cent la ñuy fay. état bi mooy fay li des dama lay wax rek. dama la dafa wutali jàngalekat yi wax dama ne la man dina ñu lay wax. dama leen la boo demee tey am na lu boo demee tey enseignant bu dem fajo ji tey boo demee am na too booy fey yow li ngay fay yow te loo jàngalekat ak li ak jàngale di kat di fay du benn avance tabaski bu jotee dinañ jot ak seen avance tabaski lépp loo xam ne war nañ ko jot ñu ngi koy jot li ñu war a li ñu xam ne moo ñu métti mooy lenteur administrative yi am nañu fa lenteur yooyu dañ ministère des finances aussi rappel boo xam ne war na ko fay jàngalekat man foofu lay wax man man ah bu sama bu sama 2014 bi duggee dinaa am rappel kay dinaa ara mais nag rappel bala ma cay métti mooy ba ma waroon am 3 millions ay 2 millions lay am parce que sur imposition boobu mooy problème mu jàngalekat bi tout le problème mooy euh, mooy lenteur administrative yi ak sur imposition ci rappel loolu aussi loolu aussi loolu rek moo laa gis ne problème mu jàngalekat leen li si des nag on va se battre dañuy xeex rek parce que jàngalekat moom bu la kenn bu la ñoom ñun moom hmm. euh, lépp loo xam ne tey buñ ko analyser xool ko syndicat yi xool ko li war nañ koo mën a xeex dañ koy xeex am euh, ñu ñëwaat ci seen réseau boobu noonu seen réseau nga xamante ni tey pëccaxoo na est-ce que nekk léegi kuréel ga ëmb jàngalekat yi bokk ci APR bu njëkk daal bëri woon ngeen bruit waaye léegi gis nañ ne xeex bi ngeen doon xeex sax génn di défendre président Macky Sall presque da ngeen koo nooyal li mooy li ma la wax ci léegi rek nee naa la succession Youssou Touré moo am problème loolu la parce que xam nga euh, euh, euh, kii bu amul bopp la wagon bu amul bopp la donc président il faut mu xes fexe nag ñu am foofu noonu ki nga xam ne moom la tabb kooku décliné man kat buñ ma joxee lii laay def. président ko war a tab wala yéen. ñun président moom mooy euh, le président du parti moom moom parti moom moo moo jiite parti bi du ma ne moom moom parti bi moo jiite parti bi su ko jiite da am na loo xam ne prérogative am la mën ngenaar mënu ma ci dakare mënu ci dara moom mooy seet profil yi nga xam ne tey ñoom ñoo bëgg le réseau des enseignants muy keneen ak keneen mu ne ah man kat ñii laa yaakaar ñoo war a mën a jël le réseau mu xool ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñu choisir koo xam ne tey bu jëlee réseau des enseignants dina mën a tey remobiliser les troupes dina mën a tey téye ñëpp am vision bu claire bu net gaay topp ci gannaawam. mais ñaata camp ñoo am foofu man gisuma fa camp man dëgg dëgg neex yàlla gisuma. camp mais ñaata candidat ñu ko fa bëgg ñoo fa nekk. ma nit sax mun na ne man candidat la su fekkee ne au fond nit mun na ne aussi du ma candidat fekk na moom candidat la parce que ku si nekk si ñun aussi bëgg nga euh, prouver bëgg nga wone ne man kat. suñ ma joxee réseau bi lii laay def parce que ñi ñi gravité autour du réseau nag ñu ci bëri aussi am nañ compétence pour yore ko parce que man du ma nekk fii aussi di xas samay nawle mais dama la bëgg a wax ne la ñëpp tey ñi nga xam ne man xam naa leen dans le réseau di ànd ak ñoom amul ñu ko ci mën a yore am nañ am nañ ñu ko ci mën a yore ñoom ñëpp war nañ ko mën a yore donc ce que je veux dire mooy tey ñun daal euh, président Macky Sall la ñu déglu tey mu sifflé euh, fin récréation bi ku si nekk xam fan nga war a toogee mu jël ki nga xam ne moo ko war a mën a yor waxuñ la mu yor n'importe qui de kaka war a mun a yor mun a fédérer mun a boole enseignants yi mu ñu doon benn man loolu laa wax. d'accord ku ko mën a yore. Mm-hmm. mais c'est pas parce que kii nii am na lobbying mbala kii nii am na ay nit mbala kii am na fële pale ñu fex ba buux ko président Macky Sall déedéet jël ki ko war a yore parce que dañoo bëgg encore suñu njaboot gi dellu si waat ci loxo. d'accord voilà jërëjëf euh, Ngenaar Sène euh, yow nga bokk ci euh, réseau des enseignants républicain nekk bu responsable politique APR Pikine. Mhm. sànq yaa ngi rappeler li président Macky Sall wax ci conseil présidentiel bi. Mhm. wax ne bépp bépp loo xamante ni lépp lu mu sant gouvernement bi ministre wala dara jëfewoo ko wala yi mu am yeexaange tolérance zéro la si wax. Mhm. mais est-ce que du xale yi ñoom ñoo yar entre guillemets Macky Sall président ndax gis nañu ne depuis que manifestation yi am léegi Macky Sall kàddoom yëpp euh, dafa nooy léegi deux neuf ans nga def ko ci bopp réew mi te yow avant ngay nekk président jiite nga fi poste bu nekk. lan moo tax kon mu toog ba neuf ans doog di wax ne ku sant mbir boo ko deful tolérance zéro. waaw de mais borom kër gu ne waru chaque jour ngay jël jël yar di jël yar mais parfois nga nga ndax sa ndax sa njaboot. da ngay waaw dama ne parce que li nga wax ne pourquoi mu nooyal mën na la nooyalul du question nooyal parce que aussi état fulla ak fayda moo koy yore xam nga yow am na sa doom yoo xam ne tey boo waxeek ñoom boo waxee ak ñoom am na par exemple la euh, exemple ci ñun ñun jàngale ko am na élèves yoo xam ne tey soo waxeek ñoom ndànk bu ñu ko naroon def sa duñ ko def mais boo dëgëralee rek ñu def ko noonu laa la bëgg a wax comme noonu aussi euh, euh, population bi aussi jeunes yi aussi noonu la ministre yi aussi noonu la li mu wax ne ku ku deful mu aussi ñu ñu ñu def la punition bala sanction bi nga xam ne moom moo war mais wax na dëgg man je suis entièrement d'accord avec lui ku liggéeyul ñu yóbbu la ñu dindi la fi jag teg sa morom ñaar 16 millions de sénégalais ñoo fi nekk ñaata nit ñoo war a am njàng bi ak ñaata nit ñoo am compétence bi ba benn nit bëgg a hypothéquer tey li nga xam ne loolu la président Macky Sall liggéey jaaduwul. mais mais mais mais bu demee boo wax loolu kay parce que sentir xam ne defuñu seen liggéey. est-ce que yow jàpp nga ne am na ñu yàqal président. mais effectivement du ma man je suis là je suis pas là pour citer ay tour non waxuma ngenaar nga citer benn tour est-ce que ah. jàpp nga ne entourage président Macky Sall. am na ñoo ah xam ne ñoo ko ah yàqal bu baax baax am na ñoo xam ne président bu leen toppee du dem. président bu leen toppee du dem moo tax ma ne la il faut que parfois muy am diagnostic ku si nekk lim la jox mu ñu di la évaluer. il faut que ñu évaluer tey ñi nga xam ne bu ñu la joxee tel ministère bu ñu la ko joxee diir ñu évaluer la. xool ba xam da nga jàpp dafa am ñuy saboter liggéey président dafa am ñuy saboter parce que président bu demee wax ne bu ay sanctions cela veut dire am na ñoo xam ne dooruñ fay wuñu. mais effectivement. d'accord voilà. léegi euh, Ngenaar Sène euh, yow la ñu invité ci rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mi léegi nag ñu wax tuuti ci euh, APR Pikine. Mhm. APR Pikine yow responsable nga foofu. Mhm. danga nekk sa responsable bopp. ndax yéen APR ñaari baat ñett euh, kenn taxaw fii ne man responsable la kii taxaw fii ne responsable la yow da nga nekk sa responsable bopp wala dafa am ci euh, koo xam ne moom nga topp ci ginnaawam. man euh, d'abord responsable laa fa ci mbirum jigéenu jàngalekat yi d'abord. ci jigéenu jàngalekat jigéen ñi nga xam ne ay jàngalekat lañ bokk ci président Macky Sall maa leen fa jiite. may militer aussi Caaroy Gaar te ba ma fay militer aussi ba ñu ba ñuy monter suñu réseau des enseignants foofu noonu di ko fa monter euh, Samba Niam moo ñëw toog muy sama coordinateur communal moo ñëw toog euh, fi may militer encore parce que maa ngi logé aussi Thiaroye Azur ba ma fa dëkk aussi monter samay sam samay samay samay groupement de faam ak samay lépp di fa def samay samay samay activité foofu noonu amunuma ne kenn ji kenn jiitewu ma fa parce que gisuma sax foofu responsable boo xam ne war na ma mën a jiite. yaa fa man jiitewu ma fa de. mais man sama koñ ba ma nekk di def samay politique gisuma benn responsable boo xam ne fekk na fa benn boo xam ne tey jàpp na ci ma jox la un exemple benn jour laa xëy suba teel sol tenue Macky Sall mooy tenue beige marron yi di dem ca boutique ba mais li ma li ma intercepté ci nit xaw ma nu mu toll waa ma dem ndëkkate yow ci président nga bokk waa ma dem ñun fii amuñu responsable ma ne ko ah bon suba sa laa xëy jël sama kayit dugg ci dugg ci appartement yi ci kër yi ne leen acca ci wàcc ci suuf ci laa commencé teg samay réunion macha allah ba foofu tey boo boo fa taxawee caaru Aziz boo boo nee euh, euh, président Macky Sall rek ñun c'était Socabek. Mhm. soo fa waxee président Macky Sall dañ la demal ci madame dem d'accord donc donc pour vous dire loolu aussi peut-être am na responsable yi ñoom tam foofu xaw nañ fa manqué tuuti vigilance. parce que ci ruqu-ruqaat yooyu noonu war nañ fa mën a dem war nañ fa mën a sensibiliser war nañ fa mën a dugg war nañ fa mën a wax ak ñoom parce que am na ñoo xam ne tey ñu seen kër yi toog mais ku leen jël si la ñuy wër. parce que dañuy toog ci télé bi di gis li président Macky Sall def seen xol dafay sedd. man déjà yoo xam ne président def fan. ci dëkk bi. ban dëkk. dëkk Sénégal foo dëkk feneen fu dul Sénégal. waa ngenaar yi itam nag. yow tam yow tam li nga bëggul moo tax nee naa la même asamaan bi bu ñu leen ko wàccee tegal leen ko ngeen ni gisu leen dara loolu il faut nit ñi bàyyi ko mais dangay soo xam ne de nekk këram du génn. mu gis la nga kii mu ne ah yow man président Macky Sall li mi def man neex na ma de man kooku def boolewul dara ki wax. toppoo ci benn responsable. non euh, bu ma bu ma demee Caaroy Azur sama fi ma dëkk sama commune ba ma dëkk topp ma fa ci gannaaw kenn man sama responsable la bopp bopp la di di di di mobiliser ma di liggéey sama candidat nga fa ci yi nga xam ne. élection locale xam ne dañoo jàpp sax ne Macky Sall dafa ragal a organiser élection locale yi ndax fi réew mi toll ak euh, contexte bi xale yi fipp ñi mere ko désespoir euh, président Macky Sall ragal a organiser élection élection locale yi ñenn ñu noonu lañ ko gisee ngenaar yow est-ce que euh, candidat nga ci euh, Thiaré Azur. Thiar candidat la Thiaré Azur candidat la mairie mairie de la ville de Pikine bëgg naa mairie ba waaw kenn moomu ko. candidat waaw lu may wax di wax ngaa naa ko ci rajo bi kay candidat laa kay ba pare euh, li nga nu ñu wax noonu ne nu mu tëddati ragal organiser élection yi loolu ku amul bilan moo koy wax même même fi nga xam ne opposition moo fa nekk tey fi nga xam ne tey opposition moo fa nekk tey président Macky Sall def na fa dara président Macky Sall amul foo xam ne ci Sénégal du ko booy dem ci Sénégal même le plus prof fii yu gën a sori tey soo fa demee tey fekk nga fa réalisation président Macky Sall kon nag bu ñu waxee ne dafa dañoo ragal a dem élection loolu ay wax la nee naa la ñi ñuy votel président Macky Sall du nekk ci mbedd mi du yuuxu bala ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñi votel président Macky mooy ñu nekk ci kër gi nee naa la man jour bi ma solee sama tuni génn ñi jënd ca boutique ba waa madame yow ndikate APR nga bokk donc dafa newoon loo xam ne jour boobu du ko fàtte mukk ci sama bopp bi dama obligé dugg ci kër yi dugg ci kii génn avec une dame bu fa nekk une dame très dynamique moom laa bool dugg kër yi def porte à porte la la am la am groupement groupement boo xam ne macha allah nee la toll mais loolu tey pourquoi les responsables yi nga xam ne jox nañ leen nomination pourquoi mënuñoo wàcc à la base def noonu mais duñ ko def ku si nekk yaa ngi fi nga toog di dund say privilège ku la woo la jot mais pour lan alors que président nit ñi bëgg nañ ko. maanaam euh, ñiy liggéeyal Macky Sall ñu ko war dañoo naqaree jot daal. am na laa ko fi wax léegi am na ñu naqaree jot mais tey tey la la ma def noonu tey aw ma moyen tey def ko mais ku am bu ko defoon du gën a baax du gën yaatu. man tey ñooñu tey topp wuñu ma dara parce que xam nga ne man aw ma lu ma may nit. waaw mais yéen ndaw ñi nekk ci APR Macky Sall euh, da leen a faalewut fulaalu leen. bon du ma ne faalewuñu fulaaluñu parce que tey man dama ne politique du dem pour am dara parce que bu demoon pour am dara. ma toog waaw il faut nga am moyen mais am na ñoo xam ne dinañ la gëm parce que dañ xam ne kii dafa dem tax te yàlla tax am na ñoo xam ne dañoo bëgg bokk man gis naa ci ñoo xam ne dama ne man bëgguma poste booy dem rek yóbbaale ma ma loolu fii laa <laughs> dama ko dama ko bi ma ko militant waxee dama bëgg mu ne ma xoolal madame fooy dem rek boo ma yóbbul baalu ma la ma damaa bëgg génn damaa bëgg a dem damaa bëgg ànd ak yéen parce que président li muy def dafa neex ci xol li président def mosu fee am mais loolu sedd na xol. mais ñooñu <laughs> ngeen a très sincèrement ñooñu ban réew lañ nekk ñi ngay wax ah, Sénégal lañ nekk. ñoo wax ne ñooy wax Sénégal dafa neex. mais c'est vrai dañu gis mais kon nan moo leen soxal tey nga war a dem war a dem Fouta nga dugg dugg APS ba Fouta. nga dugg APS ba Touba dugg APS ba Tambacounda dugg dama bëgg dama jum dégg tali ba Tamba ba Kaolack mais loolu neexul ci koo xam ne man da nga daan man jaxaw Fatick rek boobu moo fa daan dem mun nga def 4 heures ci yoon bi loolu ñu defar ko ba nga xam ne 30 minutes yaa nga biir jaxaaw kooku doo ko fa teel ayu tam am na loo xam ne weddi gis bokku ci. d'accord weddi gis bokku ci donc ñooñu dañ ko bëgg ndax loolu ñooñu utuñu président lu mu leen jox mais ñooñu président na defar xam nga bu yoon baaxee économie baax. Mhm. yoon bu baaxee kay dem jaww bi tey sa mbokku jaww bi yooyu tey di war a ñëw Dakar gi di jënd seen i dossier laaj leen ñaata heure la def ci yoon bi laaj leen ñaata heure la ñaata def ci yoon bi loolu macha allah loolu rek mun na tax nit votel président ba 2035 ah, léegi euh, euh, ah waaw gis nga li may wax téegi nii yéen xam nga yéen euh, dañ leen <laughs> dénk réew mi deux ans ngi ngeen taxaw fii mais ngenaar président Macky Sall fii la taxaw vaar ñu vaar ko xam nga dañ koo vaar yow gis nga vaar yi. gisuma benn vaar. mais ngeenaar gisoo vaar ci lu baax rek. Hmm. vaar bi moom lu baax rek ba mu fi ñëwee ba léegi eggal na chantier yi mu fi fekk defaat ay yeneen chantier jam ñaajoo ngi nii boo fa demee da ngay mel ni yaa ngi pare ah, jam ñaajoo rek boo fa duggee da ngay dafay mel ni yaa ngi pare waxatuma la nag Dakar centre ville xoolal pont yi xoolal auto pont yi waaye président Macky dañ ko ah, yéex am waaye xam nga yéen yow yaa ngi yaa ngi campagne mais euh, euh, VAR dañ leen a VAR euh, ci troisième mandat yéen Macky Sall fii la taxaw avant 2019 ne ne bii mooy sama premier mandat bu ñu ma falee incha allah 2019 mooy sama second et dernier mandat. vidéo boobu Ngenaar seen auditeurs yaa ngi lay dégg yaa ngi ci réseaux sociaux yi gis nga vidéo boobu ñu vaar président Macky tey lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat lan nga ci wax. Ngenaar ñetteelu mandat li ma ciy wax lu simple la euh, président Macky Sall. mais nga vaar bokkul bokkul bokkul bokkul. mais gis vaar vaar bu baax rek laa gis. vaar bi moom dama am mandat bi gisoo ko Ah, waaw d'accord loo wax waaw man li ma wax ci troisième mandat lu simple la gis nga suñu président Macky Sall bu fekkee ne constitution bi nga xam ne moom moo euh, moom moo régir suñu texte yi fii Sénégal bii moom moo wax ne président Macky Sall dina def troisième mandat du doon sax troisième mandat deuxième mandat la parce que trois mandat bële bokku ci moom ci mandat cinq ans bii nii la waxee ne dafay def pour ñu am deuxième mandat bële mais loolu koy constitution leeral na ko sept bi bokkul. kon jàpp na war a def beneen mandat. waaw mais bien sûr bu ko conseil constitutionnel waxee ba mu leer nañu ci papier blanc sur noir mais man damay campagne de effectivement. te bëgg def ko yow. ah bu fekkee ne permettre loi permettre na ko ko. Hmm. da koy def. te jàpp nga ne permettre ah man munu xaw ma de parce que du ma juriste. mais dama ne bu fekkee ne loi permettre na ko ko loi bi may na ko mu def ko Sénégal loi moo fiy dox. lan moo fi dox lu dul loi est-ce que wax wax wax tax na nit ñi duñ def mais loi bu établir ne noir sur blanc que président Macky dañ koy def parce que loi moo ko permettre te loi te peut lu mu permettre dina ko sécuriser dina ko teg ci yoon parce que loi tey ñëpp la fi nekkal ou bien yow amatoo confiance ci suñu ci suñu ci suñu loi yow ah kon nag jeex na tak yow répondre nga réponse wax nga wax nga sa joxe nga réponse bi nga xam ne moom la ñëpp bëgg a dégg d'accord jërëjëf euh, Ngelar Sène waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm man tam maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi euh, macha allah muy euh, vraiment rajo bu mag nga xam ne ñëpp dañ koy déglu euh, vraiment annonce bi démb macha allah zéro faute gars yi kontaan nañ maximum de partage vraiment aw ma aw ma dara aw ma dara lu may wax lu kontaan trop di remercier aussi. éditeurs yi nga xam ne ñooñu doon déglu di remercier aussi waa APR aussi di ñaaxaat waa réseau des enseignants ñu nañ doon benn on est une famille il ñun ñooy njabootu président Macky Sall lépp lu ñu war mooy defar lu ñu war mooy doon benn donc loolu bu ñu ko defee rek Sénégal jëm kanam éducation nationale jëm kanam élèves yi jàng mu am euh, mu am njëriñ jërëjëf euh, Ngenaar seen mbokk yi responsable politique la APR ca Pikine mu nekk euh, membre euh, ci kuréel gi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yi nekk ci APR moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM Abdou Khader Seck moo nekkoon ci kàddu gi ma du Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi yéen a ngi doon déglu seen émission pencum réew mi mbokk ñu leen di jox dig daje ci beneen jataay jër ngeen jëf jàmm ak jàmm.